salaamaaleykum wa rahmatulah fii mooy cay Faly man man tudd Alaaji Dem chef de cay Thiaye Faly waa ci waa ci la waaw. waaw ah, man man man man daal dama tëdd ba ay ay onze onze heures ci guddi diggante onze heures ak minuit rek ay ay ay man yuuxu ay yuuxu ma yee man man dégg yuuxu rek ay ñuy dem buntu tell tell ay ay ay buntu rek man man boobu boobu laa yeewu ma ma tasante ñu tasaaru ci biir kër. man sax bi bi may génn ab ab kuuru Baay Faal laaj ma xaare ci buntu bi no dema bu ma ko bu ma ko amul woon nu ma def bon demay rey waaw noonu la def fekk lépp jaxasoo nag léegi man fekk ñu wolu wóolu nañ gone génn nañ ñu ñu ñu jàkkaarloo ñoom bi ñu génn leen kër gi ñu ñu ñu demaat nag ñu ñu ba ca raanraam ba ñu ñu ñu ñu ñëwaat ñu ñëwaat nag léegi ñu ñu taxaw ci ci ci ëtt kër gi ñu ne léegi moom kenn dootu dugg ci kër gi ba fa tasante rapport bi ñëw na waaw man daal loolu laa ci xam waaw waaw rey nañ ñetti béy yóbbu nañ juróom fukki kar gaañ gaañ nañu ñetti ñetti suñu ñetti gone ñoo bàyyi faal yi bàyyi ah man kay man kay xawma de bi bi ñuy coow ak ñoom feere rooto bi ñoom ñëw fii ñu bi gét tabiri ñuy sarse ñoom waaw sarse rek bi ñu laar jóge fi fekk sarse nañ bi oto fees ñu dem man moom gisuma gisuma bi bi bi bi commandant ñëwee ubbil naa ko yëpp kër gi yëpp fu ci ne dugg na ci mu mu wiri fi wiri fi gisul dara gisul ngarnaay gisul poon gisul dara waaw waaw suñ suñu gone yi am na yoo xam ne suñu gone yi boobu jàpp nañ leen ñu yóbbu leen commissariat waaw. Baye Fall yi waxuñ dara de ñoom ñoom waxuñ wi dañu wis waxuñ dara ñoom ñoom ñoom ku dañu taxaw buntu ñoom ana góor yi ko génn leen ñu rey leen génn leen ñu rey leen la la man la man man bi ma di yeewal loolu laa dëkk génn leen ñu rey leen génn leen ñu rey leen. si si si waaw sama rakk bi ñu bi ñu toj boppam. non non non mu ngi yoroon caméra am quatre cent cinquante mille noonu lañ koy yóbbaale waaw. da ngeen a mës a am ak ñoom jafe-jafe. déedéet dar sekk ak ñoom dara mosuñoo sekk ak ñoom dara mosuñoo sekk ak moom ñun moom ñun Baay Faal sax wala wala kuloo wala sekk ak moom daal. moom de moom de moom nee na nee na nee na nee na bu bu ñu bu ñu bu ñu bu jugee ci lee ñuy def bu ñu bu ñu bu ñu lefi ne bu amee ay fan bu seddee ñu ñëw ñu mën a ànd ak moom foofu ñu dem ca ca ca kalifa bi ñu ñu baalante ak noonu daal wax na moom loolu moom loolu la wax ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne kii kii ñuy deele ñu ne kii ñuy deele la la ñu ñoom ñoom ñoom ñoom ñu waxtaan ak ñoom ñu ñu négocier ak ñoom. ah génn yaa ngi tëdd ba ba ba nit yi ñëw ci yow moom moom gi armée moom li koy génn. ñoom ñoom ñoom ñoo fi ñëw bu ñëwul woon fii duñ gis arme ñoo dugg ci kër gi ñu ñu ñu bëgg ñoo faagaagal waaw waaw. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Soxna Ba booy bii fii lay tëdd di xaar di ànd di wattu géttam dafa tëdd man ma dugg sama néeg sama baay xaar ko après ma jàpp ba pare julli daal di tëddaat ci lalam jàkkaarloog juram ci la ñu ñëw fekke ko foofu ci lañ ko song dóor ko wóore fi wuñ dara xooluñ dara lu dul jàpp ci naan nañ sooma ci néeg ba vérifié nañ bagage ba jël sama doom yi tëddoon sànni ko ci étape gone gi nekk mooy parental bi ma jëloon léegi sànni ko ci étape bi noonu muy wër noonu ah leneen mo nafay fa xew am nu mu doon demee tey paas nañ fii tey jii ah kon di nga fekk beneen néew waaye li ñu wax man gis naa néew fi ñu waxoo néew na man maa fa dem maa fa jël yeneen béy bi deewoon ma ñëw di ko sànni fan feneen dégg nga après léegi ci laa ñëw di waat beneen bi indiwaat ko fii ñaari fekk bu dee dégg nga man aw ma keneen léegi ca lañ yu ko ca lañ jaar ci biir kër gi wuuti fetal génn dugg kër sa nijaay dégg léegi su am na lu ñu biir kër maa fi nekk léegi nañ vérifié suñ gisee dara ne lii la ñu jàpp ma yobbu wala ñu jàpp boobi wattu jur yóbbu ko am du noonu waaye gisuñu fi dara vérifié fi dara laajuñu dara salaamaaleykum rek daal di attaqué ku tedd kay ku tedd kay yomb naa rey kana yàlla dimbali kay koy kon fi mu am passé na am déet ah sama juróom fukki xar yi juróom dem ba ci suba sax dem nañ ah xar yi dañoo naa xam nga ne kii oto ñoo ko jaay seen kor dégg nga après ci xar yi daal di dow toj gët bi tiit fee lañ nekk ci gennaaw ca lañ omma fii maa ngi taxaw fii bëgg leen dem ñu ne soo fa demee bàyyi fay rëy waaye kon dama doon jël samay xar ñu ne soo fa demee ñu rëy ndax boobu ñu ngi taxaw fale ñoo ko maa ngi dëgg ñu tit tit tit door di door di ko yóbbu am na ay xar bi fi bi ci des ni ci kër gi ni wëtt na boobu dañ koo damm ab béjjén ya après daal yàqal nañu yàq bu méttee métti dañ ko doon jaar xam nga ne heure bi ñu fi ñëw taf taf taf mënuñu fee nubbu dara am taf taf ni duggé kër gi ba fa li ñu attaqué ak police ni ñu fi est ce que mën fi ñu nubbu dara xam nga xaju fi ah ay ay 11 heures jamini han ah ñu ni moy bobu lañ fi nek fa lañ nekk ba fajar gaay yi suutoon ñoom mu gën metti han ah. Papa kala tuddu waaw mbir mi di man fi ma njëkk jaaxal moy fiñ ko jaaré ci dañu doon wër li ñuy téré ci dëkk bi ndax chef village bi keroog bi sëñ Mountakha waxee day téré ci dëkkam nangam keroog tankam la def kër yu fi nekk yëpp da leen wër ku ne mu nekk sëñ bi joxe na ndigal dañuy tere nangam dañuy tere nangam te kër gi sama maamaati maam sax moo ko mag waaye lu mel ni mosu fee dégg kenn mosu ko fee dégg hmm? léegi nag kuy tere loolu dox tànkam di wut tere loolu si biir si biir ay dëkk ndooyam kiram loolu war nañ ko faas yet nee nañu pool lañu doon wër nii lañu doon wër waaye fekk gisuñ fi dara ah jàpp nañu kii jël nañu ay juróom fukki xaram moom mi alaji dem mii rakkam dóor nañ ko buntu néegam lañ ko dóori daj ñu daj porte bi ba dóor ko ba mu nga nee jànnatu ah ñu yóbbu quatre cent cinquante mille bi mu yoroon yaa ngi dégg ah keneen sama doomi nijaay kee itam kooku itam fii lañ ko dóori man maa ko yóbbu woon ndaamaatu yaa ngi dégg kii nga xam ne moom wattoon jur yi fii lañ ko fekk dóor ko mu ngi mu ngi hôpital tëdd léegi nag bu ñu defee noonu nag ñëw fekk nit ci géttam dóor ko rabale loolu dugg si biir kër fekk ay jigéen di dagg ay bunt di sànni ay gone loolu kay kana kana lu lu ne mun na faa war a man moom seedu wu ma Baay Faal bu de seedu wu ma bal seedu wu ma lara man bi ma doyee ma ñëw ki gaa ki nga xam ne bu gaa ki ñu dóor ci bopp bopp bi toj maa ko jël yóbbu ko yaa ngi dégg ki nga xam ne moo wattoon gerte gi ñoo daanu ci moom dóor ko fii doog dugg seen néeg yi jigéen bi doon wax fii mooy magam ay léeru mo dem ma ci néeg man moom foofu laa ci yem waaye nag lépp lépp lépp bu fekkoon dañu agsi woon ci njëkk ak tërank ñoom ñëw nañu fi ñu naan am na ku ñu yónni ñëw na fi jënd jëndaat jënd jëndaat kanakaay ki ñëwoon jënd jëndaat kooku war naa mën a jiite mu naan kii moom a jaay jaayaat na wala du dégg wala mu naan kër gi laa ko jëndoon jëndaat waaye ñëw nañ fi kër yi kër gu mag la rek ku nekk ak kiram ku nekk ak kiram ah kër seet village ñu jéem ñun kay jàmm rek laa ñu bëgg ni kii ni sëñ bi sante woon ni sëñ sante woon kii sant ñu ko ñun ci loore la ñu wéy ci ndigal rek la ñu wéy ñun itam ba tey Baye Fall yi dañoo nekk Baye Fall waaye ñun itam ay murid la saadix lañ nangu murid itam ndax kii keroog bi ko sëñ bi dogal waxee loolu daa sol dal la mooy chef du village bi kër yëpp lii mu village yi yëpp da leen koo wax ni mu bëggee foofu jàmm ñun itam noonu dong lañ ci bëggee jàmm lu ñuy tere buñ ko gisee suñu bët sax ñun dañu koy tere sëñ bi lu mu lu mu santaane lu ñuy tere bu buñ ko gisee seetuñu Baye Fall seetuñu gendarmerie seetuñu police dañ koy jéem a teral suñu bopp duñu xeex nag ñu def dara suñu doom yi ñu jàpp dañu leen ramax rek fekk fekk ñu leen ci dara fee lañ fekk kañ toog ci buntu bâtiment bee buñ leen fekkee foofu ñu ramas leen ñoom yëpp yóbbu am na ñoo xam ne ci kër gi lañ dëkk am na ñoo xam ne ci yeneen yi wër nii rek dañoo doo wëllu si rek am na ñoo xam ne sax dañoo agsi rek tombi ci ñu jëlaal leen noonu waaw loolu moom yoon moo xam lu tax mu def ko man Mamadou Sow laa tudd waaw man li ma njëkk a jaaxal mooy ay mi euh, ay min mi moye kana kuy ñëw di visiter kër doo ñëw min mi moye nga war a xaar ba yoor yoor wala ba ay dix heures onze heures midi une nga ñëw su fekke dañ laa tegtal kër guy jaay poon wala sangara nga ne kër gii laa jëndoon poon wala kër gii laa jëndoon sangara ñu jàpp ki la jaayoon yóbbu ko am na wala amut dem ba min mi moye ñëw taalu mot juróomi oto ñëw ba ci papar kër nit ngeen di génne ay jaaseeg dóor ak bant di di di di toj ay bopp kana loolu kana ñoom wistuñu wistuñu wistuñu poon ñoom kenn bañul yëg kenn yëgu leen sax ñoom dañoo jékki rek jekki jékki rek ma ba ci kër dañoo bett kenn yëgul kenn yëgu leen ñoom kenn yëgu leen ñoom dañoo jékki-jékki rek ñu ne dara ci kër gi kenn yëgu leen ndax kii kii dañoo fekk mu ngi nelew kay ñi kay kii ñu dóor fee fekk mu ngi nelew wana kana ku nelew moom defu dara léegi biñ ñëw leen wax dara góor yi fi ne anañ gën leen kese góor ñi fi ne ana góor ñi jigéen ñi yuuxoo ñu soxla wuñ jigéen ñi góor lañ soxla lañ gën nañ nangam de lii di lañ ma wax wax ñu fi leneen am na eh, béy gis ngeen leen wante xar yi gisuñu leen wante am na lu am la yaa ngi dégg ñii ñu ko tedd hôpital ñi yóbbu nañ seen alal ñi yóbbu nañ seen xar ñi yóbbu nañ seen xaalis dama yaakaaroon Baye Fall Baye Fall fekkee da ngay doxee ndigal soo ñëwee ci kër da nga war a xam nooy doxale ndax ñun ñëpp ay murid lañu ñun ñëpp ay Baay Faal lañu. ñun gisuñ gisuñu ku faatu ñun ñooñu gisuñu dégguñu ñun gisuñu dégg dara ñun ñun daal seen burwe lañ dégg dégguñu leneen ñun daal burwe Baay Faal lañ dégg nan lañ taxawe jigéen ñi wooy wooy wooy ñun ñëpp añ daj bi ci état bi eh, ñun ñëpp jigéen ña lépp moo taxaw fii ci état bi wante ñun gisuñu fii leneen lu dul bett nañu dóor nañ bi ñuy bugg a dee lii lañ fi gis dañoo bëgg affaire bi ñu bàyyi li ñuy def ngir yàlla jëmu Serigne Touba Mbacké ndax gënuñu ñoom gënuñu ñoo nekk ay murit ñun ay murit saa def lañu yaa ngi dégg ndax fii mooy suñu cosaan ñun xamuñu fenn fudul fii yaa ngi dégg Daar Rahman ñu fii lañu fekk jumaa ji fii lañ fekk suñuy maam fi ñu koy tabax fii jumaa ji ne teen moo fa nekkoon suñuy maam ñoo doon wogg foofu ay nag yaa ngi dégg kon nag gén ñu gën ñu ci Serigne Touba yaa ngi dégg jumaa ji sama maam def na juróom-ñaari kabbaan kon nag xam nga ne gën a nekk ay murid sëñ bi sëñ Mountakha li muy tere ñun ñoo gën a ñun ñoo ko gën a mën tere loolu la bañ fii lu mu bañ Tuuba rek ñu bañ nañ ko fii Baay Faal man bulee démb ma leen def ni façon bi ñu def bulee démb wante lii moom nañu dimbali ngir yàlla bu mu ñaaraat ñun béy ak sàmm lañ fi doon def bi bor nañu ñëwee ñu bay béy yaa ngi dégg ñu ñuy sàmm gisuñu fi tool gisuñu fi dara lu dul ay bor fii mooy cay faali cay faali cay faali lii ñuy wax fii ay teenu maam seex ak ay fii ak ay euh, sekew gaak dara amu fi woon fii daaru marnaan moo fi amoon kër ñang sol bokk cay faali ba bëril waaw boo dëkk moo ñu fekk fii ñun borom dëkk moo fekk fii de ñun fekk si wuñ ko moo ñu fekk fii yaa ngi dégg borom dëkk moo ñu fekk ñun fekk ñu ko de moo ñu fekk yaa ngi dégg moo moo ñu fekk ñun ak sëñ Abdou Mbacke borom diir borom diir ka moo ñu fekk dañu fekk wuñu kenn yaa ngi dégg fii moo fi nekkoon cay faali sol boog boobaril sëñ Gumba Sall mais ndindi sëñ Fallu ndindi pël ndindi sëñ Fallu daar Rahman béeleel nay lii moo lii moo fi nekkoon soo musaana jóge fii ngay dem tout jumaa ja fii lañ doon def tànk julli jumaa ja saret amu fi oto amu fi kon nag ñun duñu fi duñu fii ay ay tourisme fii ñun fii lañ dëkk